Balaysa yaakaari jëm ñu jooju Balaysa Balaysa yaakaari jëm ñu jooju Balaysa Balaysa jërëjëf yaakaari jëm ñi Balaysa jërëjëf yaakaari jëm ñi Balaysa yaakaari jëm ñu jooju Balaysa Balaysa yaakaari jëm ñu jooju Balaysa Balaysa jërëjëf yaakaari jëm ñi Balaysa jërëjëf yaakaari jëm ñi Balaysa jërëjëf yaakaari jëm ñi balaysa yaakaari jëm ñu jaaju balaysa balaysa yaakaari jëm ñu jaaju balaysa balaysa jërëjëf yaakaari jëm ñi balaysa jërëjëf yaakaari jëm ñi balaysa yaakaari jëm ñu jaaju balaysa balaysa yaakaari jëm ñu jaaju balaysa balaysa jërëjëf yaakaari jëm ñi balaysa yaakaari jëm ñu jaaju balaysa ballay sa jërëjëf yaakaari jàmm ñi ballay sa jërëjëf yaakaari jàmm ñi ballay sa yaakaari jàmm ñi jaajëf ballay sa ballay sa yaakaari jàmm ñi jaajëf ballay sa ballay sa jërëjëf yaakaari jàmm ñi ballay sa jërëjëf yaakaari jàmm ñi ballay sa yaakaari jàmm ñi jaajëf ballay sa ballay sa yaakaari jàmm ñi jaajëf ballay sa ballay sa yaakaari jàmm ñi jaajëf ballay sa ballay sa jërëjëf yaakaari jàmm ñi ba lay sa jërëjëf yee kër yi jëm ñi addee Serigne Saliou Mbacké addee daa mëntoon a ñàkk rek ñu sant ku baax ki addiyal ko Mame Cheikh Ibra ci bësam ngërëm li yal na ñu Mame Cheikh defal ñu daje ngërëmal ku baax ki yal na ñu Mame Cheikh dimbali ba ñu jëkku liggéeyab sëriñ bi yàlla bu ñu dara dara dara fokk suñu bët ci àdduna lu dul ku baax ki yal na ñu yëg ku baax ki ci melo yëpp ci barke borom Touba yal na Serigne Saliou ubbi bunt yi ba sunu yéene ak sunu mbébét lépp ñu yàggale ko ñoo ngi ñaan ngaa bu Média yal na Serigne Saliou Mbacké mii nga xam ne moom lay liggéeyal di ko wane fépp ci àdduna liggéey bi yal na ko Serigne Saliou taawu maanaam ni ñuy déggee maanaam seen TV ak tele yu mag yi yal na Ngabou Média mi dem ba sut leen fuuf di dem Serigne bi téléwu ko yal na ko Serigne Saliou Mbacké def. barke maam Cheikh Ibra moom dafa baax lool sama waayu bopp la kon dañuy jox sëñ Fallou mu jàng wolofal bi maanaam ñu ñu wéyale bismillahi rahmaani rahimi wa sallallahu ala sayyidina ibrahima fall bismillahi cheikh saliou fall ci barkeem ma sant fi tay ndokel ci dolem bismillahi Cheikh Saliou Fall ci barkem ma sant fi tay ndokel ci dolem ma way fi ñaar fukki fan ci ramadan ki fele ci lambi yalla mbeug ma fay daan la ilaha illallah waahidul kahaaru muhti ahmadou bamba mbake mom modi muhti ñaar fukki fan ci weeru koor mo fi wóor nga Cheikh musa ko waxon ngir mom modi go mo fi sidina Jibril sey ci ba ngirum gu reey ba aslamtu nafsi na la sama bop mo fi waral ñay ram di joxe suñu bop Cheikh ibrahim Fall rek fi def ab ñuy fal roy bamba di nangu suñu njébbalu guddi guddee mu daan gis ak seen bamba mu xëy ni mes mu far di wër seen bamba ñaar fukki fan moo fi waral yërmande sant nañu moo mu jël ci alkande moo fi andi bëgg gëm ak i jëf it saa boroom faal say gaayee fi raw it bu bamba doon jëmm moo di ruu ba bu bu doon ndawal yaay kiy defi solo ba bu bamba doon ñam nga di cafkaam ku la gëmul du mu sa xam ab neexam yaa fi bëgg sëñ bamba def koy waaxidu ku ko fi jëfe nga fag fi doon ahadu faa njëgg sa njëbbal gee tax ñuy sant donte zaayir ba la amel ne la ab cant ku lay yemale yemaleeg waayam kooku alku na mel na ni géewu yàlla ak yàlla daf bi yàqu na ana lu waay di jëf ba am si ngërëmu sëñ Bàmba di tax jëf bi xoromu ku lay sikk tey naan man murid laa sallaahi matu fi sax ab yéeféer laa ku lay sikk tey naan man murid laa sallaahi matu fi sax ab yéeféer laa ku lay sikk tey naan man murid laa sallaahi matu fi sax ab yéeféer laa waduudu baabul muridin Bàmba ko waxoon Ibrahima Fall jëmbam Bàmba ko safoon bu Bàmba doon gémmit nga di ay bëñam bu doon iman yaay defi ay ay gëmmam bu Bàmba doon yàlla ya di yaari yonent bi ana gëm yàlla tey di weddi yonent bi bu Bàmba doon yi lu baax doon yaay ki defu alxaqu ku mën na def ay ko weddi alxaqu Cheikh Ibra Fall yaa tax ñu gëm sëñ Bamba ma sant la yaa tax ñuy bëgg sëñ Bamba ku lay nawloo may ko fi teg saa neefara ma ëpp la te di nga dund ab safara ku lay nawloo may ko fi teg saa neefara ma ëpp la te di nga dund ab safara ku lay xool mooy kiy gis sëñ Bamba ku lay déglu mooy kiy dégg sëñ baamba ku la fay ut mooy kiy fi am sëñ Bamba ku la fiy ji mooy ki fiy saxal sëñ Bamba ana ko fi mu sa jëf jëf lu jëful sëñ Bamba gërëm ba di naan ciy doful ku la fay sikk moom moom de xanaa bu mu jébbalu hàddiya bu mu joxe sëñ Bàmba doo du nangulu say ñoon it bu leen dingat dinga daanu ku si ku si xamul du la wàññi nanga maanu say ñoon it ki leen dingat dinga daanu ku si xamul du la wàññi na nga maanu laa ilaha illallah muhammadu rasulillah si bés bee la fi saxee wóor na yàlla alxuraan atat baadi ci ibrahima faal moo fiy tegtale moo di jëfu saa borom faal ku fiy durus baadi si kër lépp maam siidi màggal tubaak lépp faal yaaram yaanu gind cheikh adama gay sang bi leen ndokkeel naa la cheikh mactature yaaram bi leen ndokkeel naa la maam mariama bu sa yaa fi amee ab jërëjëf béral ca kaw maam seeni bu njaay jërëjëf borom tuubaa maa ngi lay woo gërëm ñu maam maa ngi dagaan atu man Diop maa ngi màjjal xaritooñu aminu bi jaay képp ku làkk ridwaan fi sëñ Bamba ak i làmb Fall yàlla na nu daan allahumma salli ala sayyidina Muhammadu Mustafa ridwanullahi adiyee si karaman la Cheikh Moussa ko wax ki sut ñëpp Fall Cheikh Ibra sant na la te gërëm la it neewoon na jërëjëf doom Modou Moussa Fall sëñ Bamba bëgg la gërëm la it yaa màgg yaa mat ahadu yow Fall sëñ Bamba jox na lay xelam si lu dëgg Cheikh Ibra Fall jox lay xolam am di Moussa Fall xel gi rëy na te xol bi duuf na est-ce que yaa lamboo nuuru daari ni si ko xam Fall yaa di maaliku rijaal baabul xulóomi xaqan ma hubb hadiye yaay ka sa mën Fall siru laa ilaha illallah sa kër gi am di Cheikh Moussa Fall yàlla daal nga yëngoo Fall doom faal yaa tax ñuy weg doomi bàmba ya jigéen yaa wane ni duñu moroom xanaay boroomi faal bu yoon bi doon def jëmm nga defi yaxam bu doon bâtiment nga di feer bu dëgër faal yaa di yoonu baay faal si lu ñu mën a yaa jiite armée wu soldat faal yaa di géeju mbaamu lan yaay saa buy ngëneel seytaan ak iblis dajaloo nga setal leen faal yaa amee Touba faal ci Ahmadou Ibra faal jéggi na juróom-ñaareelu sama hëy bu la faal yaa ngi ne fànq yaa weex tàll te rafet yaa ngi nëbbu yaa ñuul kuq baatinu faal yaa amee bay réewu Sidi Ibrahima faal lamp Abdou Kahar Abdou Wadoud Abdoul Kamal faal yaa rëy loolu jëf yaa di yaay jëmbi taalibe yaa ëmb ngëneel Cheikh am Fall da ngay sëriñ da ngay borom te ëpp nga sax ku lay rëbb ba jàpp am na Cheikh Ibrahima Fall sëriñ Bamba la féetoo mu ëmbal la mbëggeel ak i lampam ba yow jamilu Moustapha Fall say tóorndoo ñoo mën fa ñu mën a nekk ajabun karaaman mujisaatun ilaahu Fall jinatul xuldi ngay dëkkale ña lay féetoo jaarukaa xalbulaahi ñu seeyee fa Fall njaboot gi da ngaa jëf ñu gis te ànd ak yow Fall Cheikh Chérif Assane Fall kàttam bi ëpp na lool moo fi gën a bëgg te gëm Cheikh Moustapha Fall bëgg loo nga ni moromante woo jiitu yaa di mujjee yaa chakouru Fall yàlla ëmbal na lañ cofeel yenent bi bëgg la lool góor dëgg mooy ki lay yëg Cheikh Moustapha Fall Cheikh Ibra ne bu ëllëgee mi def bu yàlla fay fay ko ba ñëpp jeex mu fay Modou Moustapha Fall góor yëpp ñu ngi mel ni ab sondel gu ndaw yaa dib jënt yaa fay bay fay ka jëfalul góor yàlla yëpp ña di fay ka leen jox yaay kiy fay bay fay a jëful góor yàlla yëpp ñu leen di fay yaa leen koy jox faal fal ñu jox ñu lépp ñu gërëm ñu seeyoo ñu féetoo ñu foog ñu coobaroo ñu faal ñëpp a ngi sant ñëpp a ngi gërëm si ki waroon jafe mu yomb ñu jërëjëf Cheikh Moustapha Fall am di Fall Cheikh Moustapha lii du kenn yow bàkk naa la yaa daan yaa yor ndaba akbar Fall maalikul mutadir fa yàlla tuddoo kenn jotewul nga far nga far samp ay loo doon Cheikh Moustapha Fall sa tur gi rek day jëngal xol di riiral dënn di àllooru sa ñu xam kay Cheikh Moustapha Fall yaa bëgg Ahmadou te gëm Cheikh Ibra yor mbooti xasida yaa yor ndimbalu tey ak ëllëg nanga ñu defal Fall ay Moustapha Cheikh Ibra fu mu la jëlee sëñ Bamba rek def boroomu Cheikh Amdi Fall ay Moustapha Cheikh Ibra fu mu la jëlee sëñ Bamba rek def boroomu Cheikh Amdi Fall bur yàlla sant ñeen sant sëñ Bamba ak làmp ahlullaahi ak i junn min def yëpp jomb la Fall alhamdulilahi bala saa borom Fall andee fii thank you merci jërëjëf shukran Fall mboolee mu jaam yi sa borom Fall amal ki mu gën a bëgg moo di Mouhamadou Moustapha Fall allahuma salli ala Mouhamadou Moustapha Jamil wa sallim alayhi ala Mouhamadou Moustapha Kamil